actu du jour lu ci gën a fës Kocc euh, Barma lay doon depuis moom rek ba mu dellu si waate dafa indi rek xol bu rafet euh, si vidéo yam mu yor ñuy def lu bon moom nag da leen tegal rek ñetti condition euh, ngir bal leen baña a publier rek seen vidéo yooyu mu yor ana ñetti condition yooyu lan ak lan ak lan la dinañ si dikkaat si yaatal wi dinañu dugg tamit Kër Massar wax si lu doy war lu fa am ba tiital rek askan wa fa yeewoo loolee du leen rek lu dul sapeur mesuré rek ñetti mètre dinañu ko yaatal boobule xibaar tamit bu euh, buñ ca noppee ñu wax si lu ñeel politique ak rek cabinet njiitu réew mi Macky Sall di Mame Mbaye Niang nga xam ne dafa def bu am solo lool si complot am si njiitu réew mi Macky Sall moom sax jot naa xam le ne njiitu réew mi Macky Sall xam na lu làkku si ginnaaw yëpp te dina si jël ay décision coalition jot na daal di nañuy amal ab janook taskatu xibaar yi ni kii démb ñoom nag dañoo joxoñ rek baaraamu tuuma kii di Emmanuel Macron ne rek moo nekk si ginna arrestation gu kii di Guy Marius Sagna Miss Sénégal 2020 di fatiment Dione moom nag ñu koy critiqué depuis ba ñu ko tànnee comme Miss suñu réew mii di Sénégal moom nag pour la première fois daal dina si àddu dal di dakkal rek débat yi kàddu yum si yëkkati dinañ leen ko xamal si bu ñuy yaatal lay doon people da dañu wax tamit si mbirum Collé Tëxa tamit ñu wax ni rek euh, dañ ko sëriñ ci moom moom mi nga xam ne xel mi dafa des si jamono ji ne nañ sax bile feebar mu ngi ko dal rek si ba mu ñëwee Ndakaaru loolu yëpp bu yembee tàggat yaram lañu siy toftal comme niñ koy defee saa su ak lu ñeel combat royal bi si diggante Modou Xarañ Lo ak euh, kii di am Baldé waaye tamit si lu ñeel combat Balla Gaye 2 ak Boy Niang lii moo ciy gën a fës yaatal wi ginnaaw bàkk bi lay doon ñu leen di nuyu ami internetu Dakar Buzz actu du jour nu ñu leen ko diggee la ñu koy daal di defee doore kook mbirum Kocc Barma depuis ba mu dellu si waatee moom Kocc dasee indi rek xool bu rafet lool gannaaw ba mu fas yéenee jëfandikoo vidéo yu mu yor si ñuy def lu bon ngir rek def ak bu rafet lool moom nag Kocc ngir mu baale ñetti condition yi rek la teg di def donc si pouponnière yu nekkee si Dakar ñaareel bi nag di dimbali xale yu feebar wa ilaa rek ay nit yoo xam ne ni seen loxo jotul seen gannaaw ñetteel bi nag du leen lu dul convaincre rek lu tollu si juróomi doomu aadama ñu dem maye ji deret centre national de transfusion sanguine bu nekkee si wetu hôpital fan ba noppi rek daal di koy woon preuve lu ko moy mu fësal seeni ba vidéo moom sax kocc amoon benn vidéo boo xam ne ni rek ab footballeur buy évoluer si ñaareelu division championnat français bi e si noonee nag mu dal di ñaan kocc moom footballeur bi daal di koy balu ngir mu bañ a publier boobu lee ko loolee tax ba footballeur bi dal di mujjee rek euh, woote ay xaritam yu nekkee fii si ndakaar ngir wax leen ko ñoom ñooñee nag nga xam ne six lañu au lieu de cinq ñoo mujjee je rek maye ji deret foofee ca centre nationale de transfusion sanguine laata ñu koy yónnee preuve yi moom Kocc Barma loolee sax moo tax mu baal joueur boobee leneen benn xale bu góor bu ay atam toll si 19 ans nekk originaire Montigny sur Sambre nekkee si wet Charleroi la yoon teg loxo gannaaw ba mu violé rakkam bu jigéen bu atam toll si 13 ans maanaam fukk ak ñett euh, moom sax xale bu jigéen bi da see jëlee rek ëmb bu ñu sukkandikoo si la nouvelle gazette ëmbam boobu sax moo sabab tàmbale ba enquête bi moom nag xale bu jigéen bi ba ko enquêteurs yi laajee daa njëkk rek joxoñ baaraamu tuuma bu góor waaye nag enquêteurs yi dañoo wëlbateeku rek si magam bu góor boobee am 19 euh, ans képp si noonu mu xamal leen ne moom xale bu góor bi euh, ne xamoon na ni rek lu muy def baaxul waaye nag xamul woon ni tëddee rakkam jooju waru ko bu ñu sukkandikoo tamit si le quotidien xale bu góor bi violé na tamit ñetti rakkam yu góor loole sax moo tax ñu teg ko loxo def na ay bës donte sax mu ngi woon si liberté conditionnelle ku faat euh, Jamil Kebe di xale bu góor bu ay atam tolloon si 17 ans si guddi àjjuma ñaar fukk ak ñeent jàpp samedi ñaar fukk ak juróom si weeru janvier atum 2020 bi ñu nekk ngir ab téléphone portable daal di nay jànnoo ko enquêteurs yi bu ñu sukkandikoo si l'observateur moom nag euh, la leen xamal moo di daa jóge ko euh, bërëbu liggéeyu kaayam di ñibbi këram si la dajeek rek Jamil Kebe léegi nag ñaari frèram yi daal di koy cokkaas daal di koy songu xeex laata ñu koy daaneel si noonee ñu daal di leen di atte mu xamle ko moom mécanicien bi si noonee nag la ñibbiwaatee këram ba tey si ay kàddoom ba mu génnaatee di dem boutique lañu ñu ko songaat mu ragal rek ngir ñu gaañ ko tax ba mu delloo ti këram daal di fay jël paaka daal di dellu ngir janook ñoom nee na nag ba mu yeggee jàmmili képp lafa fekkoon mu dal di koy foncé dal di koy jam paaka ba si pooj laata mi xam ne ni bëggul woon a jël lii di téléphone portable waaye nag témoin yi métti na lool ak kàddu yu mécanicien boobu yëkkati ba tey ci actu du jour famille yu Ndioub Seck daal dinañu jot certificat de genre de mort buy ànd ak permis d'inhumation bi si noonu ñu daal di koy denc moom Ndioub sekk si armeel yu nekkee ca Thiaroye-sur-Mer démb ba 15h jotee bu ñu sukkandikoo sax si RFM daal ñuy jeexal audition yu ñuy amal si famille yu ba Fatou Diouf sax di waajuram bu jigéen moom nag enquêteurs yi daal dinañ koy déglu ñaari yoon talaata si fattali moom moomee Ndioub Seck dañu ko fekkoon rek ñu fat ko si anam bu ñaaw lool ni si ADSIPS eh, bi nekkee si route nationale bi moom moomee sax nga xam ne ñaar fukki at la amoon 64 fois la ñu ko jam rek lii di paak ñu ko def li ni mel nag ba tey xamaguñ ko waaye police mi ngi wëyandi liggéeyam. ñu dugg kër Massar comme ni ma leen ko junjee léegi wax rek si li ñu fa gis nga xam ne tiital na askan ba fay yeewoo foofu nag ab jaan buy mesurer ñetti mètre la sapeur pompier yi dal di fa jàppee boobulee jaan nag mi ngi doon dund si bassin de rétention ba si noonee ñuy ñaan rek nguur gi ngir mu jël ay mesures si nu mu gën a gaawee daal di rek sécuriser askan bu dëkkee foofee ca kër masaar leneen comme ni ngeen koy gisee noonu moom soxna Aida Saliou daa demoon rek amal ab ziara si Serigne Cheikh Saliou lu koy firndeel nag moo di vidéo ziara bi nga xam ne mën ngeen ko suivre sur Dakar Buzz. gannaaw ba borom këram géek doomam ju jigéen jigéen ne àdduna si ab crash d'hélicoptère dimanche si wetu Los Angeles Vanessa Bryan di soxna ko bi Bryan daa dinay génn si pàttaaralam bi gannaaw rek ba mu si yëkkati ay kàddu yu njëkk si Instagram àllarba si ngoon nag la ko yëkkati moom nag daa nay publier ab photo de famille bu rafet boo xam ne nii rek moom moo si nekk borom këram ko bi Bryan ak seen ñeenti doom yu jigéen yi comme nu ngeen ko gisee noonu ba mu ca noppee nag la daal di bind ba ab bataaxal ba tey si Instagram di xamle ni rek xamul ban moo la war a yëkkati ngir méttit lu bile mbir daaye nag bam co noppee la daal di rendre hommage borom këram googu mu soppoon lool ak seen doom ju jigéen jooju di Gianna laata rek muy remercier milliers de personnes yu leen won rek seen cofeel ak seen soutien ba mu co noppee ba tey tamit mu dal di jàll yeneen famille yu juróom-ñeenti doomu aadama yu si ñàkk tamit seen bakkan politique chef de cabinet njiiti réew mi Macky Sall di mambay Mbaye Niang daal dinay def ab révélation suñuy complot njiiti réew mi Macky Sall moom nag mambay Mbaye Niang ba muy janoog Papa Ngagne Ndiaye la xam le ne njiiti réew mi yëg na rek lépp si ñu koy complot waaye nag moom Mame Mbaye Niang du joxe benn turu ba nit te heure bu ñu xëyee rek tekki seen ndombal tànk bu mu leen bett si noonu mu dellu di leeral ni njiiti réew mi xam na lu xew lépp ak lu ñuy def lépp te heure bu waxtu wi jotee rek continuer si jël ay décisions. ngir xeex ñàkkub kaaraange bi ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye daal di nay bàyyi police yeeg gendarmerie yu nekk ci mbedd yi daal di amal ab opération combinée sécurisation bu am valeur lool euh, bu police euh, gendarmerie ci Dakar Touba ak Kaolack loolee nag Aly Ngouille Ndiaye mi ngi ko lancé si teewaayu directeur général de la police loolee nag Aly Ngouille Ndiaye mi ngi ko lancé ci teewaayu directeur général de la police nationale et du haut commandant de la gendarmerie nationale ak directeur de justice service militaire ca camp Abdou Diassé état-major du groupe opérationnel bu Dakar waa coalition jot na daal dinañuy amal ab janook euh, taskatu xabaar yi ni kiy démb si àllarba gi ngir rek dénoncer rôle bu France di jouer si arrestation Guy Marius Sagna gannaaw ba ñu joxoñee nag baaraamu tuuma kii di Emmanuel Macron ne rek moo nekk si gannaaw arrestation kii di Guy Marius Sagna si noonee sax seen porte parole ba di Fatou Blondin Ndiaye di xamle ni Macron mooy jox rek ndogal autorité sénégalaise yi si lu ñu war a def leneen njógu ba diwlin gi daal dinay am yokkute fii si Sénégal un litre bu doon jar 900 francs maanaam rek téeméer rek juróom-ñeent fukk léegi ñaar téeméer lay jar jàpp ñaar téeméer rek juróom-benn fukk 20 litre ba doon jar ñetti junneek ñaar téeméer di jar léegi ñetti junneek juróom euh, ñetti téeméer boobule yokkute nag jaaykat yu nekkee si marché bu Tilène ak yenn soxna ñoo ko xamle démb euh, si micro RFM wax ci mbirum Ahmed Khalifa Niass ak Ousmane Sonko Ahmed nag nee na dana porter plainte kii di Ousmane Sonko ndaxte dafa fekk mu am parti depuis ñaar fukki at tuddee ko Front des Alliances Patriotiques moom Ousmane Sonko dal di def parti tuddee ko Pastef ba noppi dal di jël patriotique ba noppi nekk moom ñu mu amee ñoom ñooy ay patriote su noonee moom Ahmed xalifa ni Sonko daa sàcc patriotique am te waru ko jël loolu rek moo tax mu fas yéene ko porter laata muy xam ne ni kuy sàcc sant jàmbur turub jàmbur wa ilaa sax di sàcc parti jàmbur ba muy nekk impôt it loo jekku da nga koy sàcc xanaa kay dafa fekk ni rek impôt sàccukaay boo xam ne la doo feeñ ndaxte rek dañuy masale sàcc gi mu xamle ko moom docteur Ahmed Khalifa Niass people addu si couple Nasira Ndiaye ak monsieur Faye seen couple boobu nag nga xam ni defoon na gannaaw seen mariage bi daal dinay jeex gannaaw ba ñu tasee seen sëy bi si bii di Nassira Ndiaye daal dinay libre gannaaw ba mu nekkatule ak borom këram ga wone di monsieur Faye ñu koy critiquer depuis ba ñu ko tànnee rek comme mi Sénégal si atub 2020 bi moom Fatima Dione daal dinay mujjee yëkkati ay kàddoom si bile mbir daal di dàkkal débat yi moom nag la moo xam ne moo di critique yi defuloo dara si moom ndaxte fii si Sénégal la ñu nekk donte sax xaarandiwu ko woon si ñoom si benn côté si noonee muy leeral ni critères yi nekkul taar ak taay ak sa couleur yaram képp waaye nag dañu doon xool tamit si lu ñeel say valeur ak sa yar ma junjoon leen ko léegi si ndorteel li ko le tëxët mi ñu wax ne rek dañu ko sëriñcu ba tax xel mi des ñu gëj koo gis nag si seen théâtrale yi moom comédienne bawol bii di Collé tëxët nga xam ni xel mi daa des si jamono ji ay mbokkam nag di si xam le ni ñoo ngi sant yàlla ndax ay xamee Collé ñu ngi leen si jàppale bu baax a baax donte sa situation bi nag dina gérer si noonu ñuy xamle tamit ni ñoo ngi def seen kéem kattan ngir supporter bi feebar wi sax mi ngi ko dalee eh, ba mu ñëwee fii si Dakar moom Collé Teughët waaye nag nee nañu mi ngi faju eh, si jamono jiite ñu ngi ko téye seen wet rekk di koy surveiller. tàggat yaram absence Luc Nicolas du indi benn jafe-jafe ci combat ci eh, diggante Modou Lo ak Ama Baldé Willy Nicolas nag di doomu promoteur bi xamle woon na ni moom mooy jël en charge Luc Nicolas inco eh, te kon moom mooy promoteur bu beesu boobu li structure moom nag daal dina koy wone gannaaw ba mu wuutee ba am rek licence promoteur de lutte nga xam ne sax CNG ñoo ko ko jox ci noonu Willy di dellu rek di dalal xelu amateur yi gannaaw ba mu xamle ni combat diggante Modou Lo ak Ama Baldé luy am la si bile saison. ba tey ci boobule combat Birame Gningue nag daal dinay xamle lu leen si avoca bi xamal moom nag nee na bëgguñoo commenter décision justice bi waaye laata ñuy signé boobule contrat si combat Modou Lo ak Ama Baldé ak kii di Luc Nicolas waxtaan nañ seek seen avoca yi ñu xamal leen ni Luc Nicolas dina am liberté conditionnelle te duñu ko téewaat foog rek deful lii di délit te loolu nag moo leen encouragé rek ba ñu signé ak promoteur bi mu xamle ko moom Birame Gningue ni dinañu bàyyi bu yàggul dara promoteuru combat royal bi tëjee kooku combat si diggante ba Gaye 2 ak Boy Niang nga xam ne amateur yàkkamti nañu ko lool gannaaw ba mu amee sax ñu bëri ñu koy dox staffu Boy Niang nag dañoo rejeté proposition promoteuru jamaïcain bu leen joxoon rek cinquante millions si bureau frère am bi di Abdou Kandji ndaxte rek nee nañ lu ëpp loolu la ñu leen joxoon ba muy bëreek Sa Thiès ñu jotati lu ko ëpp ba si Lac de Guiers moo xamle moom euh, Tafa Kandji di chargé de communication staff Boy Niang